xam nga depuis 2005 Sénégal mo ngi koy def programme bobu 2500 véhicules njaga njay ak car rapide moo taxoon mu jóg waye gis nañ ne depuis 2005 ci 2500 yi néew na ñu renouveler 2000 yi donc presque kon lolu moy 18 ans après presque ñu ngi def ci sur place man na wax ne sax li jot renouveler sax nek nañ ci âge ñu war leen renouveler encore parce que yëf yi dafa yeex parce que opérateur yi ñom ñoko yoré yore te ku lu opérateur yi yoré sen euh, loxo jotul sen ginnaw lolu motax euh, mbir mi xawa yeex non lolu motax ñu xalat mettre en place ben fonds ñu tuddé ko fonds de développement des transports terrestres nga xamné da fay impulser renouvellement bi accélérer ko bu baaxa a baax ba nga xamné parc automobile bi dina nek parc automobile bu baax bu bess bu mucc ayib mëna def transport bu propre transport qualité transport aussi bu performant loolu nag jàpp nañ ne dinañ ko commencé ci deux mille vingt et bi incha allah te xaalis bi jógee di alimenter fonds boobu presque booy xool service transport yi ñoom ñoo koy alimenter donc loolu aussi nekk na loo xam ne war nañu ko souligner léegi nag war nañ waxtaan ak ñoom ci agrément ñaata lañ koy yokk. ci permis de conduire ñaata lañ koy yokk ci licence d' exploitation yooyu nga xam ne dafa gratuit ñaata lañ koy yokk parce que nag transport la ñu bëgg mu financer le transport te loolu jàpp naa ne acteurs nañ ci indi seen contribution. ku def 40 ans 30 ans 50 ans ci secteur am nga expérience boo xam ne bu ñu la dégloo ni ñuy defee mbir yi dina gën a gën a mucc ayib mais aussi waxtaanee texte yooyu nga xam ne war nañ ko indi ak coppite yu bees yi nga xam ne ñëw na ci secteur bi conseil national de transport terrestre wax nañ ko fonds de développement de transport terrestre wax nañ ko fii agence de sécurité routière wax nañ ko fi yooyu yëpp war nañu waxtaan suñu biir ba nga xam ne bu ñu ko tëggee ba teg ko kenn du ne dama ko umpale woon wala fekkewu ma ko wala yëguma ko woon donc loolu mooy solo ndaje bi ñuy gërëm nag euh, transporteurs yi ak euh, chauffeurs yi ak ñi nekk ci secteur transport yëpp mooy assureurs yi mooy banques yi mooy euh, ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ak ay usagers nekk ay association parce que ñooñu aussi ci yëf yi la ñu bokk ñooñu ñëpp ñu ngi fi toog di taataan di andi sen xalaat pour que taxi yooyu nga xam ne moom la ñuy jël bu ñu ko jëlee mu nekk taxi yu mucc ayib jëmale transport ci kanam.